dugg ci wàllu làmb ku ne xam na ni sa diggante ak Balla Gaye 2 ku ne xam na ni sa diggante ak mbëri géejawaay Balla Gaye 2 jëm ci combat bu mag diggante mu ak Gris Bordeaux Mohamed nu mu gisee combat boobu. waa xam nga combat bu la su man juumoon la sept euh, août la. Hmm. nest pas combat bi ñëw na presque. Hmm. Euh, Balla Gaye daan woon na Gris ah, dina ko daanaat encore deuxième fois. Hmm. fu wóoru xam nga Balla Gaye mbër boo xamante dafa am fula an fayda c'est que Sénégal dañoo jàpp su yow am defo tey ñoom jàpp yow comme ci defo yoo dëkk depuis temps moom am combat avec euh, Bombardier am defo bi léegi Sénégalais bu bëri wan ko ginaaw ci loolu hmm. mais il ñoom xaaral ci combat moom and euh, euh, Gris Bordeaux la Balla Gaye dina ko daan da nga ko gis ci gàllaaj yi ci xàmb yi ci fétiche ba ci xam-xam ba ci yëpp. Balla Gaye dina daanaante ko deuxième fois dina daan Gris Bordeaux deuxième fois. Gris mbër musu ko daan toog ci dënn bi Balla Gaye de dina ko daan Gris Bordeaux ne loolu Balla Gaye de ko ci moom yow nga ni Balla Gaye ko daan. Balla Gaye daan Balla Gaye daanal na ko la première fois. par avertissement ñàkk par avertissement toog kawam def photo ñàkk def photo waxuma loolu mais victoire la wax Balla Gaye dina amaat victoire ci. ci kanam euh, ci kaw Bombardier euh, Balla euh, Gris Bordeaux incha allah. ci lu wër ci vision en tout. mbaa làmb ji du jàll nga ni dañ ko changé. amu ay changé dara lu ma wakkee lu ma gis ak loolu moo ci nekk. ke lu des bariwutu la seet bariwutu de motutu un ah. day daan toog ci kawam da koy dóor mu daanu dañuy xeex dem ardo victoire laa wax. non loolu nag dafa yomb Mouhamed. victoire laa wax xaw ma dinaa daanu kaw moom xaw ma dinaa togg ci kawam te photo Balla Gaye dinaa am victoire ci moom. non ñu buñ daan wax dañ naan noo da koy daanee wet wala da koy daanee ndijoor wala mais boo toogee rek ne Balla Gaye day daan rek. loolu yëpp ay wax bu xasoon la. Hmm. loolu yëpp ay wax bu fen la. Hmm. su yàlla des fois su vision ñu dinaa la wan victoire bi fu mu nekk. ay dina ko ja daaw ko daanu ko yëkkatu bopp bi ou bien dina ko daanu ko yëkkatu tànk bi loolu yëpp lijjantiwuma ko lu may wax mooy victoire. Balla Gaye sama xarit la encore nekk mbëri Guédiawaye nekk lion de Guédiawaye aussi ñoom ñëpp ay Lac de Guiers numéro 2 mais lu man am pour ci combat bi mooy Balla Gaye dina am victoire ci kaw. Euh, Gris Bordeaux incha allah. Hmm. Euh, loolu dañ la koy nangul Mouhamed Prince moo joxe xalaatam Gora Sock fils de Balla dañoo war a bëri la quatorze août jam production moo ko organisé combat boobu noo ko gisee. non combat boobu sax euh, ko. Hmm. parce que combat boo xamante man bokkuma ci duma wax ci dara. combat boo bokk rek nga. combat boo xamante damaa bokk ci laa laa mën a wax du man nag léegi du seet loo xamante kenn yéene wu ma loolu comme damaa am jot lu bëri. Hmm. su man amu jot. dinaa lijjanti loo xamante sama yoon nekk. loo xamante sama yoon nekk ci kenn ñu di man euh, Prince lijjanti combat bi damaa bëgg xam combat bi la mu demee du ma ko far sa hmm. loolu moo ci nekk. combat boo xamante bokkuma ci xaw ma ci dara. seet ma ko sax andu ma ko sax seet. mais su Fils de baala ñëw. wala man dugg ci mbiri bi. xooro combat bi man xam victoire bi fu mu feetee su man naa liggéey ci man liggéey ci loolu kese laa gëm. victoire bu feetee ci benn mbër prince mun nga koo dëpp mu dellu ci. dëpp combat dafa yomb euh, am na ci fétiche bu fàtte man Nigérian la de lu nekk am na ci fétiche dëpp combat dafa am mais bu fàtte lu yaay dëpp keneen bu liggéey ci kooku mii foofu encore di xeex xam nga làmb xeex la. Hmm. comme bu ñoo ci làmbo lu lu ah, euro un am na euro deux yëpp ci ñaan yàlla rek fu mënta nekk liggéey ak xuraan ou bien liggéey ci fétiche dëpp combat dafa yomb changer victoire dafa yomb mu nga changer nga dëpp ko muuru ko seen beneen sëriñ sax su moom dem ci seet du du gis exactement victoire bi parce que am na sëriñ yi boo xam ou bien seetkat yi boo xamante ñoom dina di man seet na ko gis ma dara hmm. parce que combat bi dañu ko muur kenn mënu ko gis ci fétiche yi kese yow mu nga muuru làmb kenn mënu ko ko gis. léegi lan moo takk man def liggéey fétiche xam nga bu wax fétiche yi pour sénégalais bañ a jaawal fétiche bi man judduwalewuma avec liggéey ak hmm. fii nii laa ñëw tuub nekk musulman 2019 comme Nigéria fétiche kese ñun xam comme su ma wax fétiche. man féticheur la Sénégalais waroo jaawale ma ci lu bon. Mhm. parce que fétiche kese ñun xam. fétiche mooy loo xamante lu am deret kuraay lu am deret animal loolu fétiche la waxuma ay ray nit lu loo xamante bokk na ci mbiri nit loolu formation la man bokkuma ci mbiri formation. Mhm. kon su ma bokk ci mbiri formation tey nga xam danaa am sama avion bopp. est ce que comprend mhm. voilà loolu moo ci nekk da nga gis nit bu bëri ñoom nekk ci internet di fen rek. waa lu man am xaalis ñàkk bi liggéey bi moo ma ko may. ànd sama ñaari waajo ñaan sama ñaari waajo ànd lu may yoroon Nigéria aussi parce que ku dugg dugg ci dugg ci famille eh, royal comme am na lu bëri boo xamante musuma ñàkk ci sama àdduna. musuma mm-hmm. liggéey liggéey bu diis. ba xamante man di xaar man dem def formation. déedéet loolu musu am. comme may sant yàlla. sant yàlla sama ñaari waajo parce que lu man am tey ñoom moo moo def fondation bi. es ce que yaay comprend voilà loolu moo ci nekk da nga gis sëriñ bu bëri tay bu nekk ci bu dee dinaa la defar nga am xaalis mais moom dëkk ci location xanaa lu baaxoo moom bokku moom bëggoo ko bala man di yow tay man dinaa la defar nga am alar bu yaatu comme man dinaa njëkk defar sama boppu ba pare côté foofu Sénégal yi jeunes yi da dañoo war a yeewu nekk di la nax lekk sa cinq million nga nekk di ko gém première da nga xool fu mu dëkk da nga xool ban vie mi dund nga xam est-ce que lu woote mii ci moom yow ñëw nga fii léegi gis nga fii lu mu mel. Hmm. waa comme jeex na. mais temps yii a fay yow presse dafa fay kun kànd dafa fay Moustapha Dramé dafa fay temps ay saa Touba xew nu mu tuddati Mara ah, ay ay sant yàlla ñoo ñu daal ñoo xew. man romb na mbiri xew dama judduwaale ci buzz Nigéria mbiri xew wakkuma ko xorom ah, bu wax ñoo ci mbiri xew bii mooy magasin Nigéria gouvernement Nigéria moom ma récogniser léegi bu ñoo ci fii yëpp ay personnalité yi Nigéria moo ci nekk kam moo nekk fii Prince Mohammed moo nekk fii gis na bu ñu ci mbiri gis na kii nii moom moo yoro élection Nigéria mii ci suuf ma mii deuxième comme ma maa ko juut ci mbiri bi comme am na lu bëri boo xamante fondation sama famille génni avec man am sama ñàkk an sama gém-gém moo ma yóbbu fu man nekk tey ci àdduna kenn mënu ma fay lu ma fay. ñu naan da ngaa fay man maa waani bu jëre kunkande bu dugg ci sama mbir parce que man du morom kunkande man am ma mbokku yoon. Hmm. dama judduwaale nekk si ren. musuma def beneen liggéey ci sama àdduna âge quinze ans soixante neuf laa judd la vingt quatre octobre mille neuf cent soixante neuf laa ay doom yi yoroon ay sokna comme kenn mënuma fay ay Mara Niass moo xew ay Moustapha Drama dafa fay ou bien Prince Mohammed dafa fay sama bopp laa xam man maa bay tele parce que télé amul amul ma njëriñ lu bëri. man xew na man xew na ba pare. non xam nga wasaare. dama leen jàpp. Hmm. ñu am fula an fayda. Hmm. mais gis na télé boo xamante ñoom dem jëre sëriñ bi tay suba ñoom dañ jëre sëriñ bi suba day yàq suñu dërët dama bàyyi ñoom ñëpp soxloo ma ko. lu ma war a am man am na ko ba pare. dem ci YouTube nga tappe Prince Mohammed ou bien Prince Benjamin da nga ma gis. Hmm. comme lu may wutati. may dawal sama oto yi man yoroon sama doom yi yoroon samay business Nigeria. and am na business bu wóor boo xamante entreprise bu boo xamante dama ko bëgg tëj ci fii nii. Hmm. bu bes boo xamante dinaa employé jeunes sénégalais ñoom liggéey maa ngi ci. su loolu ñaan ñaan kese du sama métier. man am na taxi fii am na cat cat jeunes yi Sénégal moo liggéey ci am na karando. sama patu paro ma mus na ko may oto pour nga xam sama patu paro Abou Konatar ku munta nekk xam na ko ma mus na ko may oto jënd oto may ko comme am na lu bëri boo xamante ñaan bii ko di tey prince nax na ma kooku dafay fen da nga dem ci eh, commentaire yi nit bu bëri tey di dem di bind kii day fen day duuri sëriñ bu bëri moo nekk di ko def di yóone hmm. ñoom moo nekk di di yàq ay deret yi sirène bu baax yi di dem ci commentaire di bind kii day du kii day fen mais lijjanti sa bopp moo gën am soro hmm. si yow nekk foofu di binde prince Mohammed day fen day duur man nekk dem noosu sama noos di def sama liggée bu wóor di voyage sama voyage su ma bëgg dem états man dak sama billet dem. mais est-ce yi ngay ñaanal. ñu ngi ciy gis seen bopp yaa ngi leen di mais su ñoom gisul seen bopp comme fan man dinaa xanaa yoo xamoo su yoo faju diw moom indi keneen. Hmm. léegi su loolu amee léegi fan man danaa nekk ci donkaasi di man nag tey man togg na ci donkaasi di man juddu ba léegi hmm. fu nekk man voyage dem heure yoo ñoo ci buntu bi man du ma abu oto sama oto laa dawal sirim bu bëri ñoom dina dem abu grand bubu non kan moo fi aborté wala garaam bu ñoom ñëpp am nañ ay garaam bu yooyu loolu kay bëri na. kan moo ay sirene di jër ay taxi loolu kay c'est pas sa di jëre ay taxi mais foo xamante yow musu yow egg ko ci àdduna bu bu jëre sa loko bu dem foofu. mais sëriñ yi mu nekk milliardaire. léegi lan moo tax ñoom nekku milliardaire. ñaan saabu du la. ko wax su ma mun na la faj dinaa faju sama bopp garab maa yi sangu ma maa ko defar sama bopp. su ma mun na jëre garab léegi nit dafa feebar man defar ko garabo moom wër comme su man feebar damaa war a jëre même garabo defar sama bopp man wër mm-hmm. garab man mun na defar yow léegi nga nekk nga nga am xaalis pourquoi mënuma ko defar sama bopp su ma mun na la defar tay nga am oto pourquoi man mënuma defar ko sama bopp xanaa man bëgguma oto gis na àdduna yëpp nit bu ci nekk bëgg na nekk kilifa. Mm-hmm. bëgg na nekk borom xaalis comme sëriñ bu woote tey moom mun na defara nit moom nekk milliardaire moom di saabu mënu gis na loolu ay wax bu xasoo la ay wax olof kese la saabu mënu fa fotu boppam ku wax loolu dafay fen hmm. waawaw waaw saabu danaa fotu boppam ba suba parce que su yow mu nga defara nit mu nga defara sa bopp loolu moo am solo hmm. comme am am gis ma dara léegi boo xamante léegi dafa maa jaaxal ci àdduna hmm. saaba mënoo defar boppam pour pourquoi saaba mënoo def si yow mu nga dugg ci liggéey làmb defar mbër moom am victoire léegi nga ñëw ci sa xeex bopp kenn mënu ma fay. am match nul. waaye kenn mënu ma fay. yaa ngi ne prince dafa fay. dafa daw bi muy dem Nigéria dafa daw. <laughs> am ñu mu yoreel xaalis daw. man lu bari moo wax ma sembe. Hmm. mbiri télé bi wàññee ko tuuti. Hmm. parce que ñoo xamante amu amu amu ñoom amu client moo nekk di jaabante ci télé. Hmm. di man mun na li man mun na la lu man mun man maa ko xam sama bopp. lu ma mën client yi man jëfle na avec ñu nekk bitim réew man jëfle def na ci mbiri kayit yi ñoom moo ko xam mbiri am pelmi ñoom moo ko xam ñoo xamante dañoo jàpp ci mbiri prison ñoom moo ko xam ñu man génn na dafa bëri ci prison. Hmm. ay ci. nii nii nii ku nekk ci jafe-jafe nga génne ko prix. waaye yow ma ne ñu nekk bitim réew boo xamante dañu koo tëjji ci kër xam nga am na ñaari façon prison ci bitim réew. Hmm. tëjji yow ci sa kër am ci tëjji ci sa ci kasto bi. danga jaara ci sa kër dem tribunal. bëri na ay nit boo xamante man di ñoom ju yow danga jàkkaar juge bi ju boobu ñoom di laa la libre. bëri na ci. lu man am tay client bu bëri ay téléphone lu bëri tay client moom ma ko yónnee adiya jour iPhone 11 génni bu bees même pas deux semaines man am ko ci cadeau. an jigéen moom ma ko jox ko adiya. kooku ko lu man defar ko moom moo ko xam munu ma nekk ci internet bi di wax. footballeur yi bu nekk bitim réew ñu bëgg ay contrat man defar na dafa bëri. su ma mun na nekk ci liggéey lamb du am lu ma bëgg. lamb moo xanaa yoo xamul liggéey lamb moo gën a metti hmm. am politique. waaye yow làmb xanaa yoo xamoo euh, mbër bu ci nekk am na ay fukku fukku sirène hmm. ah, comme jeex na. mais kañ la ñuy gis Mouhamed Prince wàcc arène nationale ànd ak mbër sol yëre yooyu yëre nigérien di sotti mbër mi di ko takkal di ko defar ay. non loolu loolu man romb na côté foofu. Hmm. lu may liggéey dinaa dem géej liggéey bi man nekk sama gaale liggéey su ma liggéey bu fini la matin mbëre bu war a dem man dem këram defar ko bu fini hmm. dem sama yoon no man man romb naa mbiri gis ma man romb na loolu dem de sotti ay galaaj non man romb na loolu danaa dem sa kër avant nga dem estal bi man defar yow nga dem yobu jokk yow bagage yëpp nga nga yóbbu wax yow lu yow nga ko defar koo xamante moo nekk responsable de la sotte ay galage bi man wax ko def ko lii lii def ko lii lii def ko lii bu man dana ko tak man takk ko man dem sama yoon du ma dem install man mun nañoo install encore man du ma ñëw ci ci géew bi man dinaa nekk ci ginnaaw di def lu may def est que yaay comprend hmm. mbir yi affaire yi ay gis ma lu bëri yi man nekkatuma ci hmm. no non non invitation lu bëri léegi si yow invité ma man di dew ma fii la toog di gérer lu may gérer di gérer li ngay loolu léegi dinañ ci ñëw léegi Mouhamed Prince ci lan ngay seete ci ndox ci pettaaw ci ci suuf wala nan lay seetee. du ma seet ci ndox du ma seet ci pettaaw du ma seet ci suuf dama seet ci vision si yow ñëw sama seet cinq mille francs la. yow ñu nekk Sénégal. sama kii ma jàkkaarloo mën nga ko seet. waaw loolu kay. loolu kay mais tuura man sant moom jeex na. cinq minutes rek man wax ko lu ci nekk ci fii bëgg man du ma seet ci par exemple jàkkaar caméra bi du seet xam nga seet vie privée la mhm. parce que yow xamoo sa ennemi fu mu nekk yow da nga gis ñu nekk ci télé di yaay seetal nit à direct ci télé mhm. noonam nekk di déglu mhm. dem yàq ah, bien sûr am na ñoo xamante lu bon kese ñoom mën de nga nekk ci télé di seetaan kooku nga nga nga teg ko tànk di loolu du am mystique moom bëggu def du am du am am na sëriñ bu bëri lu ñoom xam tey mooy kott sandi kott bu bon mais kott bu mun ta nekk nit ci sandi yow dina ko dindi dellu ko ci borom man duma dindi sandi de dinaa dindi dellu ko. yow da ngay dindi ba pare delloo ko fi mu jógee. ko delloo ko fu mu jógee. ci fan nga koy beneen fan rek sama faj trois jours la. waaye yow fay bu ay jinne jàpp la ay rabo ou bien affaire yi dañu ko liggéey ba mu sonn ou ñoom dañoo yàq viam dañoo ko taxal ci sagam li yëpp ay mariage trois jours man defar ko. ku am euh, soxna. moo soxna soxnaam duñu mën a juboo lu bari ci sëy bi saa yu ñu duggee ci kër gi ñoom ñaar duñu jaaroo taal loolu lan na ci Mouhamed. waa première da seet ba pare xam est-ce que liggéey la ou bien mbiri rab la ou bien est-ce que seen wërsëg ànd na ande am na euh, mariage boo xamante liggéey la nga liggéey diw pour moom takk la hmm. su liggéey boobu expiré mariage boobu du musu am jàmb est-ce parce que am na liggéey boo xamante fii yow renouveler ko trois mois ou bien six mois ou bien un na hmm. mu jeex hmm. comme mbiri ay defar mariage di nga seet ba pare nga xam lan moo problème bi su yoo gis problème bi nga dindi ko c'est comme léegi sa bopp day metti nga jëre garaabu bopp metti naan mu deñ mais pour nga jëlee garabu bopp métti nga jëlee eh, garabu biir bu daw bopp bi de mënu arrêté parce que sa biir daw. Hmm. voilà mais sëriñ bu bëri tey ñoom jël sa xaalis wu wàcc ñoom ci téléphone ñoom dootu ko jël. man kay woo ma deux heures du matin trois heures la jël su man jàpp man yow may la rappeler léegi après man rappeler. kenn musuma woo moom di moom jotuma. loolu musu am. bari na téléphone. bari na téléphone mais benn léegi benn kese moo nekk ci internet bi 77 867 22 95. boobu dox boobu kese. boobu kese. moo dox ci whatsapp bi moo dëkk ci dox ci whatsapp bi moo dëkk ci appel normal ku ma woo dina ma jot. euro bu yow woo ma dina ma jot. amu caaxaan. amu am nga amoo mm, secrétaire wala. may doy ci secrétaire. man mbiri secrétaire lijjantiwuma ko man am na ay garde corps su man nekk ci émission mun na jël sama téléphone jokkoo sama chef sécurité ma moi Wakoki, rappelle ma dans 5 minutes ou bien 10 minutes. Def-moi un secrétaire. Sama pati poro sa douwi sama appel. Sama téléphone mi ci man. Sama jabar sa douwi sama appel. Sama téléphone mi ci man tout loolu moo ci nekk mbiri secrétaire bi loolu ñoom jërë nax ñi nii di sëriñ bi dafa jàpp jàppoo dara ou bien nga dem ci sëriñ moom di yoo may ma une semaine man liggéey sa liggéey ban liggéey yaay liggéey pour une semaine. Hmm. sëriñ bi dafa war a pare. parce que am na ñoo xamante dañoo jóge fu sori ou bien seen cas urgence la nga di moom may ma cinq jours a nit mi dee nga di moom may ma cinq jours loo liggéey cinq jours lu ma mënul liggéey beneen fan ou bien léegi nga woote procès man yooyu fa ma fanaan sa set lu may fanaan ci su ma mënul la gis nii mënuma la gis suba suba xam nga est-ce fu may waxe hmm. voilà loolu moo ci nekk. Serigne dafa war a pare xam lu muy wax xam lu muy defal. mais c'est pas tatatatata mu nekk ratatata rek nga nekk comme kii nii bu mu yore nga daan doy dëcc. loolu moo ci nekk. am na solo maa lay jaajëfal baax kontaan naa ci ni ma ñëwee sa kër nga teeru ma vraiment ñu waxtaan ngay sotti xalaat bu baax a baax a baax ci réew mi. jërëjëf waaye ñaanal la leen jàmm an salaam seen baari gën a yokk. Hmm. ku bëgg leen fay du mu leen dara. Hmm. may nuyu waa taalibe yépp di nuyu sama sëriñ di nuyu sama porte-parole chef sécurité mm. di nuyu mbokku talibe yëpp mbokku euh, moriti yëpp. Mm. di nuyu fii nii man daal bu bees euh, euh, cité douane. Mm. asalaamaaleykum waa Odon di nuyu encore Cheikh. Cheikh Wade boo xamante nekk nit bu baax borom Touba. DJ événement ñoom ñëpp Abou Konatre Ismaïla Ousmane Sagna Nabi. ku man juum uh, mbëri Géejawaay yëpp Lada Gueye numéro 2. Balla Gueye Lada Gueye dina est-ce que dina bëri. Lada Gueye léegi mu am combat incha allah nuyu na ko bu baax mu nekk sama xarit nekk borom baax ñu mbëri Géejawaay yëpp liiru jaan asalaamaaleykum waa àdduna. jërëjëf Mouhamed